ak kàddu ziar bu ma tibbee sama xol fu sore si sama xol di ko jottali sunu sëriñ sunu xalifa cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bassirou sëriñ Touba di ko teg ci loxoom yu tedd yi ngir mu jottaleel ma ko njabootu maam sëñ Touba yëpp di nuyu sëñ Amadou Makhtar Mbacke xalif bu Darou Khoudoss fi teew ak mboolem njabootu sëñ Touba bi nekk si ginnaaw sëriñ bi maa ngi leen di jottali nuyoo yooyu ak ziyaara yooyu du ci boole sëriñ Bassirou Abdou Khadr Mbacke di sa porte parole di nuyu. mbokk yi fi teew yëpp ak mbokku taalibe yi ak ñu fi toogal état bi sëriñ bi ñëw naa tey niñ ko daan defee at bu ne ñëw andil la nuyoo ak ziara réew mi yëpp ci bés bu màgg bi di bésu lislaam di bésu cheikhul xadim ñuy waajal màggal ki nga xam ne indi na fi ay ngeneel yu bare ci réew mi ci diine ji ak ci àdduna bi yëpp ñëw naa ànd ak sama soxna ànd itam ak ministre l'intérieur sa doom sa taalibe ànd ak ñëpp ñu fi teew ci turu nguur gi ngir ndokkale si la ci bés bi di sa bés ndokkale la waaye it sant la gërëm la surtout tey tànk yi ma fi ñëwee muy toujours tànk taalibe di tànk doom di tànk it njiitu réew njiitu réew boobu nag jàpp naa ne ci coobare suñu boroom waxtu wi déwén bu ko yàlla dogalee keneen war na toog fii indi la nuyoo ak ziyaara réew mi loolu ci sama coobare bopp la ma jàpp ne yëkkati woon naa ay kàddu laata ñu may falaat ci deux mille dix noon Sénégal boo leen ma wóoloo de joxaat ma réew mi fas yeneen a yemale sama liggéey ci senegal ci ñaari mandat yooyu kon nag topp wax jooju ak fonk ko moo waral ma yemale ko fii ne kon lii di ñëw fas yéene ci bokk waaye loolu du dindi dara ci diggante bi nga xam ne suñu borom moo ko def muy yéene ji nga am ci man fonk bi nga am ci man bëgg-bëgg bi nga am ci man te umpul kenn ci àdduna bi te ma xam ko it dëgg muy lu nekk ci biir ak lu nekk ci biti kon bu ma tolloo fii war naa ñëwaat sedd àdduna bi yépp ne man de sant naa la bu baax këram naa la bu baax ndax saa yu ma fi ñëwee li may wax mooy Serigne Touba laa lay booleel saa yu ma ñëwee ak soxla sëriñ Touba nga may booleel yebal ma ma dem ci bërëb bi ah boo mu booleeg sëriñ tuuba nag mooy boole nga mag sa bopp ndox yaay sëriñ Touba te xam naa li nga nar ci sa biir xol jëm ci man li nga nar ci senegal yéene yi nga am ci réew mi looloo waral ñu nit dañu war di wëlbatiku di ñaan yàlla suñu boroom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool ànd ak wér ndax sa yàgg fii njëriñ la ci réew mi njëriñ la ci doomu aadama yi te it maa ngi lay dënkaat Sénégal di ko dënk kilifa diine yi ndax réew mi toll na foo xam ne ñii kilifa war nañ di yëkkati kàddu léeg-léeg di artu di sàmm ndax ku gis li xew ci Afrique tey ku gis li ñu wóor waruñ toog rek naan ñële la ñële la te seeni ñaan seeni artu seeni kàddu dana delloo ci xel yi loolu sëriñ bi lu am solo la euh, bëgg naa yow ak daal kilifa diine yi ngeen yokk sàmm Sénégal yokk di ñaanal réew mi ndax jàmm ji fi am mën a law mën a yàgg mën a yaatu ndax jàmm ci la lépp xej ah man nag na ma la ko waxee woon bu jotee incha allahu rabbi euh, fas yéene naa fii ba may joxe lenge réew mi dinaa ko sàmm dinaa ko aar itam ci li nga xam ne moom la ma constitution jox ba nga xam ne benn yàqu-yàqu du du ma ko seetaan mu ñëw ci réew mi li nga xam ne mooy lii sama wareef maa ngi maa ngi lay santaan nag te la gërëm lépp lu ma deful it ci liggéey bi nga xam ne sumb nga ko xëy na lu yàlla dogalul la waaye lépp loo yëkkati sama xol mooy jàppale la si bu baax a baax ci lépp nag te gis nañu it ngeen yi nga indi ci dëkk bu tedd bi di tuuba liggéey yu mag a mag yi nga fi sumb ba ci njàngale mu kawe mi muy daara bu kawe bi di université Cheikhul Khadim gis nañu yi ñu fi liggéey mu tombe ak sa xilaafa muy autoroute bi ñu indi fii ba ci Touba muy hôpital bi ñu am fii ci Touba tey hôpital Khadimou Rassoul ah, ak yeneen ak yeneen ñu ngi wax ndox meeg loolu yëpp waaye Touba yelloon na ko te it ah, man de mbégte woon si ma joxe ndigal sama gouvernement lépp luy wareef ci dëkk bu tedd bi ñu def ko ndax dëkk bi moo ni moo ni toll kon mu des rek di sàkkuwaat ñaan ci yow sëñ bi fépp fu ma dem yàlla mën ma fa jàppale e ma bàyyi tam réew mi ci jàmm ak salaam yàlla aar Sénégal ndax jar na ñaan yàlla génne na fi xéwal yoo xam ne fu mu feeñ nag bu ñu góorgóorluwul rek dana indi safan waaw muy pétrole muy gaas waaye yàlla bu ci defee ñaan ñi nga xam ne it ñoom lañ fi bàyyi ëllëg ñu bàyyi xel loolu bañ a war réew mi ci li nga xam ne réew mi moo ko moom muy alalam su ko defee muy jàmm ci réew mi di jàmm ci askan wi loolu daal sëriñ bi ci gàttal laa bëggoon yëkkati ay kàddu sant la rek ak ngërëm eh, di jottali sant sa taalibe bi soxna Mariam di di la sant di la gërëm di sant mbokk yëpp allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana makin wa ala wa sahbihi zawi ridwani wa aleykum wa taala wa ci ndigalul sëriñ bi ak ci kàddoom yi nga xam ne yónni ko ci ganam gi kon ginnaaw bu mu leen nuyoo mbokk yi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol njiital réew mi président de la république Macky Sall di la daral jàmm ci turu sëriñ bi yaag mboolem ñi nga àndal ñëpp te buñ ci tuddee soxna Mariam fay mi nga xam ne doom la ci sëriñ bi di léppam di ko am cofeel ci moom di di ci teg ministère de l'intérieur bi nga xam ne moo doon taxaw liggéey màggal gi ñu di la seere lay taxawaayam ci màggal gi kon sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu di la sant bu baax di la gërëm rawatina kàddu yi nga xam ne biig rek fetliwaat na ma nee naa la ko ci bis tedd bii nga xam ne ci lañ jub si muy màggal Tuubaa muy gi nga xam ne ci la sëriñ Tuubaa bàyyi ko woon dem liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi sallam dem liggéey la aw xeetam mooy liggéey boo xam ne ba dem yaakaar yàlla ak bëgg xeet li bindeef yi ak bëgg am daraje abdullahi wa xadimu rasul rekk taxoon ba muy dem itam mu jaayante boroom akuk dogg akuk ngëm ne astaxlisu li nafsi lépp maa koy jagoo bokkuma ko kenn àndut ak kenn kenn wettiliwu ko mu ne ci condition yu metti ba yàlla suñ borom def liggéey bu mat ba liggéey bu matee nag suñ borom xamal ko ne nattu bi jeex na ak ci des ba àddina du tukki itam saa su bis bi del siwaatee gépp may goo xam ne suñu borom mayoon na ko dana dana ko dolliwaat ba mu tollaat noonu moo wax ne moo tax ba mu nekkee ci tukki bi la wax ne ij'al rujuu'i ila qawmi saadatana wal takshina yawma jam'il xalqi niirana waxee tam ne lii aw silil la si du wan faxi biyal wara yaa ma wax ni yéen amit faxi kon mooy xéewal yi nga xam ne suñu borom wàccee na ko Sénégal tey waxaat itam wax ne lii kun bikun sarmadan waccaal masiri sa jaw falfara lil wara mislal maharini kon nag bu yàlla suñu borom defee màggal googu juñ ko màggal mu dem ba adduna sépp di ko wusi ba ren ji liñ ci xam ci ay délégation yoo xam ne bàyyi ko nañ biti réew ëpp na ñaar fukki réew di wéy kon nag loolu ñaan gu nangu rek ko andi kon nag ñaan gu rek mooy li am fii kon nag ñi ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loolu te di jeexale kàddu yi rek nag ndax du gudd ci cant gi nga xam ne yóbbante ne ko ci président mooy cant yoo xam ne sëriñ bi ci biir xorom la ko tibbee ngir ànd bu rafet bi nga xam ne ànd nga ko sa digg moom ak jëflante bu rafet bi nga xam ne def nga ko sa digg moom. nee na la ci jiitu mooy lim lay sant la yàlla mooy jikko ju baax ji la yàlla defal ndax nee na jikko ju baax mooy nungu dëgg nee na te loolu gis na loolu ci yow. nee na bokk na ci taxawaay bu mat sëkk bi nga xam ne def nga ko ngir indi jàmm ci Sénégal ak indi jàmm ci réew mi mooy lii nga xam ne suñ borom defal na la ko te li gën a jafe ci àdduna nag mooy dugg ci nguur ci jàmm génn ci jàmm ak ndam nee na lii nga def nag nag nga xam ne yëkkati gu rëy la la ci àdduna si yëkkati gu la la jural si digg Sénégal nag moom yàlla boole na la moom boole goo xam ne nam la ko daa waxee rek kóllëre gi mu fasante yow du tey rek du ngóor itam nee na li fii mu ngi ci kaw suuf rek kóllëre gi saa su xëyee di yokk waaye du wàññi ko nee loola nag lépp lu yaa ko jëmbat ci sa digg ak moom ndax fonk goo ko fonk jàpp koo ko jàpp def koo ko def kilifa néew na weer dugg ba jeex te yónniwuma ci yow ay yitte te lépp njaboot gi la te yitte yoo ci dégg dañ ca def ba def ci loo mënut loola nag démb rekk ci mujj loo xam ne neexut a wax ci mbooloo waaye waxtu ne yaa ngi seetu am di ko dakk loo jàpp ne mbégteem rek da nga def ko nee na loolu nag mi ngi la koy seere di la sant di la xamal ne itam nag Sëriñ Tuubaa am na lu mu waxoon daa bindoon wax ne anna man waasala nii laa li xaradin dunyawiin fa innahu yakunu min al muqarrabin wa anna man waasala nii li dunia faqat fa inna allaha yukrimuhu maadaama xayan képp koo xam ne ñëw nga ci man te àllaaxira kese tax laa jug yàlla suñ borom daan la boole ci ñëpp gën a jege képp ku ñëw te àdduna tax laa jug itam nee na sa diiru dund yàlla suñ borom daan la tere terale kon nag koo xam ne ñëw nga ci Sëñ Tuubaa yaakaar ko àdduna na sam xel tax te xam ne sa giiru dund rek yàlla dinaa la teral kon nag sëriñ bi waxoon na la ma toog li ci sakkanam kanam mooy dàqali ci sa kon nag loolu wax ba mu la koy wax waxi yëg-yëg la kon na sam xel daal di la sant itam nag ci li nga def ci dëkku Sëriñ Tuubaa bi te lépp ma ci seere ci kanamam loo xam ne lu ma xam la muy lu wér ndax am nga fi fukki at ak ñaar ci ren waaye jëf nga fi jëf ju bari joo xam ne ku ko tey dana ci bari sax lu ma fàtte waaye bokk na ci assainissement bi fukki at ñaari def nga ci lu mat ñeent fukki milliards yu juróom loolu jéggi fu rëy na kon loolu day mel ne bu demaatee at rek assainissement gàllankoor yi ci dëkk bi dana jeex loola itam def nga ci taxawaay def ci yitte def ci jom naa assainissement day liggéey boo xam loo ci def weesu ko dañu fàtte ko waaye lool lépp sëriñ bi gis na ko bu dee ci wàllu ndox mi lim ci def ci ay forage ci biir dëkk Touba mën na fukki forage juróom-ñett loolu liggéey bu rëy la bokkut ak nag tëli yi nga xam ne def nga ko fi muy tëli yu bari bi ci mujj mooy bi corniche bi ñu tuddee 30 mètres bi ëpp fukki milliards bokk na ci it projet yu mag yi nga xam ne def nga ko ba ci jiitu mooy Ila Touba bi nga xam ne man ne ñeent téeméer milliard di liggéey bu rëy bokk ci sa projet yi gën a mag ci senegal ba ca dolli kuwaat mooy hôpital Cheikhul Khadim bi nga xam ne daaw jéeg lañ ko indigré moo itam nga def ci xaalis bu bëri ak la def ca mat la bu faw sañu ba ca mujj nag te gën a ñor sëriñ bi bii ci guddi waxaat na ma naa la ko fàttali mooy liggéeyu université bi ndax université bi sëriñ bi ba mu dafa wax ne sama yitte jëpp maa ngi ko ci jëmale ngir jàngal ndaw ñi xamal leen ak toqi leen ba mu ko yëkkatee rek yéen a jëng ci njëkkoon am man mii nga yónni woon ci moom ne ma bu ma soñoon moo bàyyi ma tabaxal ko lépp ndax xam naa fi mu toll ci moom te état mën na ko ci ñetti at wala ñeent ba ma ko waxee sëriñ bi sëñ bi wax la nam ko gisee ne bu ma soñoon taalibe yi nga bàyyi ñu jëf ci waaye fa saasa nga ne lépp lu ci jëm ci tëli assainissement éclairage public lépp yaa ko def ba loola ña ngi ci liggéey ba sori na yemaatoo ci nag jëf jëng ko ci mujj jëfal mooy bi université bi àggee sëriñ bi moom xam nga ne la sëriñ Tuubaa waxoon rek katabtu fil bahri la laa du yadi ila nasara abidil maai wa tini moom noonu lay doxee du la du sas kenn du laaj kenn mu yëkkati lu ma juróom benn téeméeri million dóor ko ci biir université bi ngir dund gone yi ba nga ko yëgee yëg di saa nga ne ko loolu kenn warula ko teg fas naa yéen ma ne ci sama war gor nguur danaa fexe ba def ci budget bi situation yi nga xam ne ñu ngi koy defee université bi ñu boole ko ci. loola nag muy jëf joxoon da nga ko ci gàttandu ba nga ko ko defalee it lam la wax mooy lu la Sëñ Tuubaa ma sa defal rek lii daa ci beraatal sa genn payu kon nag na sam xel dal. mu dugal ci lu mat un milliard ci université bi ngir dundub gone yi ak di leen yor mooy situation boobu def na ko ci loolu. Euh, euh, euh, bi ñu tàmbali liggéey bi rek lam ci jëkk def mooy yëkkati un milliard def ko ci liggéey université bi te noonu loo ko defoon ci Masaalikul Jinaan te ñu bëri yëguñ ko lu ci ne ba mu koy jëf daa wax sëñ bi ne ko bu ma soobee maa yow ko yëg ku ko diggaa rek sëñ bi nga digg sëriñ bi ne kon lu mujj lii nee na la loo ma sa defar sëñ Tuubaa lii nga ko defaat daan la ci beraata sa genn payu bopp kon nag na sama xel dal mu wóor ma ne keroog wax na ma ci guyét ne ma dénk ga ma ko dénkoon Sëriñ Tuubaa wóor na ma moo ko may mu jug rafet gi kon nag loolu na xam daan la topp ba faw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bismil ilaahi ma jug ngir teeru bis bi ma saf bis ba yayoo way ba geex mooy màggalu ko ko Tuubaa bismil ilaahi na ngeen jugu teeru bis nu saf bis yayoo way géex mooy màggalu go Tuuba mooy bis bi tax nga tal yorte la yar sa dinaan sawar nga ak di diingat góor ya jëm Tuuba lu jiitu bis ku daa bañ noon di xëy na ko rey ku feex ci diineem na fonkaat màggalu ko Tuuba ki tax nga tax soo amee jom war nga koy taxanal ki tax ñu taxa bisam mooy màggalu ko Tuuba 18 ci weeru safar mooy bis ba Ahmaduna génnoon dajeek noon ya daa bañ ñi xam Tuuba ngir yàlla ak sunu ndimbal rek moo taxoon mu la fas datti njaboot geeg ña daa jaayante fii Touba ay ati at la fa def at mu ne ñuy gën a ful na toom ya ngir bañ mu dellu seen ndam ci biir Touba moom rek a dem dellu si maslaawul tasaalitu ni tey way di wax lam daa wax bam jugul Touba النصارى جل عن مثل توبوا له واتركوا تسليس دم توبا moo bari ndam te damoowul lenn yàlla la gis déglul ma wax bam ñëwee lum sant waa Tuuba ndigal la mooy daf ni woon sa mbég te kum di sa mbég bu bis bi dellu see te bis bay màggalu ko Tuuba nang ma santalewaat buur yàlla kon lu ma am si tukki beeg bokk koog yow cey borom tuuba ku am ginaar wala xar baa ba jàpp giléem bum nawte bum xeem na dundal màggalu gu tuuba billaahi kii moo di saa nafin bila dorarin moom rekk sonnoon ba am an jox ko waa tuuba mboolem teraanga yi ak xeewal yi moonu ko may sant le sant ko war kon ilaa Tuuba ku leblewul wara fay kuy gor bisub fayangi nañ wëq gaay yi te màggal màggalu gu ku leblewul wara fay kuy gor bisub fayangi nañ wëq gaay yi te màggal màggalu gu nun jekk nan jekku nan màggal ko rekk a ci des nañ def ba def lu safar la nit di raweeg maasam ku yeewu te xam ciw gàmm lay door di waajal màggalu Tuuba la in zakartum ku koy tafsir te bëgg mu wér 18 ci weeru safar waajal nga ñëw Tuuba kon danga gis la azidannakum jabu wér añub safar dafee teew li wër na waa Tuuba di bér ñaar fukki fan at mu ne ngay gën mën doo pett doo daanu yem naa màggalu ko Tuuba moo jara miiraasu moo jara dox gaboo ba bawal xawma ci dunyaa lu jar màggal si woo Tuuba bis la bu ñuy sant tey ziyaare Ahmaduna jullit ñi bennoo di dundal diine biir Tuuba bokk ya jokkoo ña di wallare ñëw dajawaat koom bi yëpp di dox cey màggalu ko Tuuba murit ya jël seeni kër jox gan ya kenn du xatal bernde ya gandoo ne yem màggalu ko Tuuba loo gis ci bernde ba ko yem far leneen ni jarañ rawdu rayaxiin di benneel ruux ya ñëw tuuba kanfuur yépp daje ñuy jàng ay limilim ci alxuraanul karim ngir màggalu ko tuuba ahlul xasiida yi ñoom ñépp daje di durus ñi yëkkati taaj neexal màggalu ko tuuba ngir gën a jege ay clientam digital store yokk na réseau ubbi showroom bu bees tàq ca Colobane immeuble CMS janoo ak caserne Samba Diéry Diallo digital store di leen proposer gamme bu yaatu ci wàllu électroménager ay téléphone qualité supérieure ay matériel informatique de dernière génération lépp lu mujjee génn ci informatique fekk leen ko digital store digital store di représentant exclusif moom dong moo fi teewal marque bi di Crosscall ak ay téléphone portable portable yu mucc ayib dëgër lool ba noppi étanche ñu garanti ko ñett ba juróomi at benn defarkatu téléphone ñemewul garanti téléphone juróomi at digital store mooy yëgal ay clientam ne am na service après vente bu mucc ayib nekk fii ci Colobane nga xam ne dañuy liggéey 24 heures sur 24 am équipe boo xam ne dafay jóge ci place bi dem ba ci seen kër mën nañoo liggéey 24 heures sur 24 fu ngeen ñu soxla ci Sénégal suñu service après vente dafay def tamit ay contrat d'entretien ay contrat de maintenance it di leen gunge ci bépp réparation ak entretien yu seen appareil yi ngeen jënd ba noppi seen partenaire de référence Digital Store mën nga jokkoo ak ñoom ci 33 842 61 38 33 842 61 38 wala nga dugg ci suñu site www.digitalstore.sn salaatu llazi fi kulli sahrin wa fi safar هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر